moo ngi nii di dund. kon parce que de dugg na nga ni ñu waxee foofu. dugg na kii du ñaan ko. kii gën. ah kay. moo ngi nii di dóor ma fusata mbil pe ndew bal ku yakane dama de wa tak tak de sa bal de wa bo ma de to de ken gid yanku di pele pale ko lu len gid ken yanku ko lu len bi moom nar na neex gid dal gid yow yaa ngay toog di kontaan di le gid wala mala mala mala dama de yow yaa ngay toog di kontaan di le moo ngi nii di dund. kon deewul. ku dee dugg na nga ni nga waxee foofu. dugg na kii du ñaanku. kii kenn ah kay. moo ngi nii di dund. maa dee. waaw toj toj. déet bale. deewa boobu maa dee too. déet kenn gi. di pele koolu len. waaw moom nar naa neex. moo ngi nii di dund. kon teewul. parce que na nga ni a waxee na kii ko. kii kenn. ah kay. moo ngi nii di malla maa ma sitasa mbil on dewo bal ko yakkane dama de waaw tak tak ma de to gel gel yanko dippele paale koolu len gel tan len bi moom nar naa neex dal git yow yaa ngay toog di kontaan di le gel bala mala mala mala